bisu sëñ Mamor xam naa ne xes day lefen di waaye ngi ñuy xaar sëñ Xaadim Gueye laata boobu rek ay kàddu yu nuyoo ak ziar yoo jagleel téléspectateurs yi waaw jërëjëf ngi leen di siyaar di siyaar mboolem waa site bi ak ñi siiwut site bi ñu ngi leen yàlla def leen tawfeex yàlla ñoo ñëw bis bi sëñ Mamor sëñ Xaadim a ngi nii ngottum sëñ Xaadim Gueye la wàccaayu poroxaan yi waaw ñu ne faaw ñu teew ci ndax Mamor kenn la ci ñun moo waral jànkat yëpp nga gis seen fi mu woo ñëpp soññ leen ci ñu bëgg a xaar kilifa a gën a yaatal ñun ñëpp ñu jàpp ci waajale ko Porokhane incha allahu rabbi. mu mel ni soppe yi namoon nañ li. waaw waaw soppe yi namoon jotaay yu mel nii xam nga jotaay yu mel dafa neex. te te ah, nag incha allah dana gën a yaatu incha allah ndax ngoon yaa ngi kanam bis ci kanam incha allah jërëjëf jërëjëf sëñ Kosa jërëjëf. sëñ Cheikh na ngi lay nuyu mbaj la ziar bu baax di la ndokkee ci bis bi. jërëjëf jërëjëf ñu ngi koy delloo bu baax a ah, am mbégte rek ndax bis bi nga xam ne sëñ Maam moo ko woote fii ci koñam di ci sant soxna Jaara Buso ngir waajale ko bisam bu tedd bi nga xam ne ñu ngi koy dëgmal ñu ñaan yàlla mu yóbbu ñu ci jàmm barke Cheikhul Khadim te lépp loo xam ne eh, naal ngeen ko fa rek soppay naal nañ ko fa ñu defee ko lu kawe seen jortu barke Cheikhul Khadim te ànd ko ak taalibe yëpp eh, jërëjëf am nañ mbégte bu baax a baax ci teew fi teew waaw <laughs>